waaw xam nga li fi amoon moom mooy dañu doon fal ay nit ba pare ñu nekk ay conseillers départementaux ou ay conseils municipaux Nous commencé di savoir... Nous mooy cette nous wala ñu commencé di à jàng Ce que dafa avant nit ki théoriquement durant ben élection municipale et... départementaux yi léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a figurer ci suñu liste yi ñu former leen ñu capacité leen ñu xam lan mooy seen rôle lan mooy seen responsabilité ñu xam liggéey bi leen di fekk suba ba nit ki su fekkee ni conseil municipal la comme ni ñi nga xamante ni ki doon euh, def séminaire bi léegi ñu ko waxee mu xam lan mooy rôle maire attribution propre lan mooy rôle conseil municipal ban contrôle la ñu war a mën a def dinañ dem sax ci kanam ba wane yan rapport sax le conseil municipal ak élu local la war a am ak euh, représentant administration ak yeneen ak yeneen donc dafa baaxoon nit ñi ñu préparer leen à l'exercice de ses fonctions waaw loolu nag ñun moo waral ñu euh, tenir atelier bi biñ koy tenir tamit ñu woo ci parce que mouvement ensemble ñun dañu yaatal

defar lañu bëgg defar nak loxo yépp ci xej euh, gis ngeen sax suñu toogee ba ñu ñëw ñun ci suñu yeggé ci suñu projet li ñuy wax programme ñun ñu tuddé ko projet rek parce que dañoo jàppee ni programme dañoo tàmm def ay programme programme yoo xamante ni intellectuel yi sax suñ ko liré duñ ko comprendre parce que day bëri compliqué ñun nak ñu ne projet bi ñuy def

loolu nag suñu ànd ak ñoom togg ko ànd ak ñoom euh, liggéey ko yaakaar naa ni ñëpp dinañ ci gën a gis seen bopp parce que lu ñëpp bokk nag ñëpp ko war a ànd defar tabax ko. waaw xam nga ñaari rapport am na déjà man dama jàpp ñaari rapport yi rek warul woon am parce que ñi ñu euh, ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu élire pour juróom benn weer la pour pour juróomi at la woon léegi. Euh, nek nañ fi lu upp at tek tegal nañ leen ci lu ëpp at te loolu ci volonté rek exécutif la je pense que population yi bi ñuy tànn nit ñi dañ leen tann pour juróomi at suñu paré won juróom at yooyu nak ñu xol ñom xayma li ñu def lu baax su baaxé ñu renouveler leen seen confiance su baaxul ñu tann ñeneen yaakaar naa ni mbir mi noonu la war a demee léegi nag lu ci am solo moom mooy respectons respecter calendrier républicain C'est ce lu am solo ci démocratie la ni ñu koy defee ci présidentielle nga xamante kenn sañul élection présidentielle euh, législatif, def nañ ko benn yoon mais Le euh, municipal c'est parce que nous ko fait. te man dama jàpp ni euh, élection municipale est yu solo parce que administration bi gis nga changement yi ñu bëgg dëggantaan ci souffle wara war a c'est à la base légui nak lolu mom da fay fekk ni nak ay conseillers ak ay euh maire ak ay euh, président conseil départementaux yu xam sen liguey la yu paré pour sacrifier wu pour sen gox la ñooñu ñoo ko mën a liggéey. waaw jërëjëf man dama dama dama japp né euh dañoo wara vraiment indi coppite. coppite bi ci ni ñu doon doxalee bu njëkk ndax xam nga xaar ba nit ki euh, falu nekk conseiller doog a dem di jàngi métier maanaam liñ koy xaare daa mel ne rek euh, journaliste bi nga xam ne dafa ne jël leen ma su ngeen ma jëlee ma dem jàngi métier journaliste pour man loolu lañ nirool nit ki dafa war a xam lan mooy collectivité local lan mooy ab mairie lan mooy rôle conseil mairie naka lay doxee lan moo ko yan mooy bànqaasu mairie Euh, naka lay doxee lan mooy ay pouvoir am fan la pouvoir am yem lan mooy li nga xam ne moom la ko état bi nguur ak loi lan la ko jox comme prérogative yooyu yëpp da ko war a xam parce que loolu bu ko xamee dana tax mu natt boppam ba xam ndax lii mu bëgg ndax amal na ko temps ndax amal na ko xam-xam ndax amal na ko yitte ñett yi mënuloo dem nga ne yaa ngi taxawal waxal askan bi te ñett yi amuloo ko xam nga loolu ci la bokk xam nga bu njëkk ba

il faut ñu delluwaat ci li nga xamné ne moy mooy cosaan moom mooy lan moy yee nit ñi former len jox len ay capacité pour que ëllëg ñu mëna taxawal askan mais mais maire maire ndaw la rek ndaw la loo xam day doxal conseil bi parce que conseil bi nga xamné ñi ñu fal ñep muy conseiller yi ñoo ko composé en fait ñoo yor pouvoir bi parce que ñoo ñooy dogal xam nga ki yor pouvoir moy ki dogal conseil boobu moy dogal maire bi sen ndaw la boo xam ne mooy bu ba par nak moom mu daal doxal